assalamu alaykum yi nuyu naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sport ans Barcelone dañoo dal di tegal Ousmane Dembélé juróomi ati contrat maanaam mu dal di yokk li nga xam ne moo aju ci contrat bu ngeen fàttale ko moom bi muy prolongé ñaari at képp la signé woon ni ki daw te benn bi jeex na voilà maanaam mu ngi jeex si bokk mu des benn léegi nag ñoom bëgguñu taaxale kook moom ndax Ousmane Dembélé kat ne na élément bu am solo la comme ni ko Xavi waxee woon voilà moom jàpp na ne sax mooy meilleur joueur ci poste bi nga xam ne moom lay football jamono bi kayiti xibaar li ñu indi mooy Barça dañ ko tegal lu toll ci juróomi ati contrat maanaam ba 2028 loolu la ñu bëgg mu signé ko voilà xëy na moom dinañu ko yokkal xëy na payoor gi ndax bu ngeen di fàtt fàttaliku nag moom kii di Ousmane Dembélé bokk na ci li xam ne moo gàllankooroon mbirum dégg nga prolongation boobule bu njëkk mooy mbirum pay gi kon bu ko Barça di tegal juróomi ati contrat bu ko yóbbu ba 2028 xëy na kon dina jot salaire boo xam ne dina ko yitteel lool moom kii di Ousmane Dembélé dinañu continuer topp mbir moomule ba fu muy mujj Barcelone gogu war a ak Real Madrid la deng mam 29 juin wala 29 juillet war nañoo football fofu la ci Amérique lay don xam nga daw bu ngeen di baye xel ci pré-saison yi footballoon nañu moy don El Clasico bi njëkk sax ci saison bi ñu ngi sentu ne dewen dina amat manam saison bi bu jexé bok fi léegi weer ci mois de juillet bi ni le 29 juillet nga xamantene ne joueurs ci lañu delu ci commencer amal li nga xamantene moy ay match de préparation. Barça dina jouer ak ñi di Real Madrid amna sax yeneen club anglais yo xam dina football ak ñom fofu la ci Amérique. Barcelone googu ba tey kii xibaar bi dafa biral ne fi mu ne nii kat mën nañoo xam njëkk gi ñu war a jëndee ki nga xam ne mooy Sofiane Amrabat bi nga xamante ne moom international marocain la di footballeur foofu la ci Fiorentina cinquante millions cinquante millions d'euros ne nañu lum néew néew moom la ñi nga xam ne moo di Fiorentina di laaj Mundo Deportivo moo biral xibaar bu ni mel nee na daal Fiorentina lum gàtt gàtt moom dina laaj lu toll ci cinquante millions d'euros ci kii di ne Barça ñu ngi koy topp jamono Lamine Camara moom moom la ñu tànn moo nekk meilleur jeune ci Ligue 2 ba ci weer wi ñu génn muy avril nga xam ne mooy weer bu njëkk bi mu fa def voilà maanaam weer bi mu njëkk def ci Ligue 2 ba mu nekk meilleur jeune loolu moom nekk na lu daal xel taw ñu fàttali leen ne moom ñaari match képp la fa football kat ñaari match wala koo xam ne ñaari match képp nga football ñu tànn la nga nekk meilleur jeune kon xëy na bu footballoon weer bi yëpp mën nañu jàpp ne mooy doon ki g a xarañ ci Ligue 2 waaye gone yi moom moom la ñu tànn mooy ki ci dàq football moom kii di Lamine Camara bu dee Alpha Junku Alpha Junku moom dañ koo gis tey ji muy entraîné ak li nga xam ne mooy équipe première bu Barcelone xam nga moom mu ngi nekk sax ci équipe réserve bi foofu lay footballé voilà tey jii ñu gis ko muy entraîné ak équipe première mbaadu dañu ko bëgg jox chance am moom ab latéral droite la de gone la goo xam ne day foofu la ca Manchester City la nekkoon ak yële ba daaw wala daaw jëkk la fa jógee dem foofu nga xam ne mooy ca Granada ca bi mu fa demee Granada dañ ko able woon foofu la ca Barcelone balaa ci li nga xam ne mooy seen équipe B bi waaye nag gis nañu dañu ko mujjee jënd ñoom waa Barça tey ji nag ñu gis ko muy entraîné ak équipe première bi xëy na bunt yi day waaj ubbeeku pour moom ki nga xam ne mooy Hugo moom jamono bi club bu Arabie Saoudite ñu ngi koy topp am na kayit kayit xibaar bu biral day de am na benn club bu ko tegal njëkk ku ci dix-huit millions d'euros par an maanaam salaire bu toll noonu boo fukki million ak juróom-ñett ci at bu jot mooy li nga xam ne moom la ñu ko proposé moom ki nga xam ne mooy Hugo Lloris bi nga xam ne ay toj-toj rek la nekk di def jamono bi foofu la ca Tottenham te ne nañu loolu de bu fekkente ne accepté na ko daanaka li nga xamante ne mooy salaire am ndax moom six millions d'euros lay laal at jot voilà ñooñu daal di koy tegal lu toll ci 18 millions d'euros ci club Arabie Saoudite xam Saudi Arabia moom seen yitte bu fekkante ne maanaam li nga xam ne ci la dox yëpp sotti na jàpp nañ ne dina bokk ci championnat yi nga xam ne moom la ñu seetaan ci àdduna bi ndax fi mu ni mel amoon na fi bi ñu waxee day ci Arabie Saoudite weddi nañu ko waaye gis nañu fa mu mujjee kon kon Messi fekk si ñëwul feneen mënuñu gën ne kon xibaar boobu ñuy wax ne dafay dem Al Hilal du dëgg loolu moom dinañu wéy di ko topp. voilà kon Saudi Arabia seen club yooyu ñooy wéy di topp kon jour bu am tur yi foofu la ci Europe Hugo Lloris bi tey moo aaye Time Sport moo biral xibaar bi ni mel. ki nga xam ne mooy Ferland Mendy moom dafa dellusiwaat ci entraînement collectif ak équipe bi di Real Madrid tey jile loolu nag nekk xibaar bu ama am solo moom nag xam ngeen ne temps yëpp moom dafa amoon ko sax muy entraîné maanaam dañu ko beroon muy tàggatu moom kese waaye tey moom moom ak équipe bi ñoo entraîné loolu li muy wane moom mooy dina pare ngir jouer ci li nga xamante mooy match retour bi nga xam ne Real war nañu koo am dégg seen diggante ci waa Manchester City am na sax kii xibaar yi xam na ne moom kii di Ferland Mendy ñu ngi li nga xamante ne mooy weekend balaa ci match bu Real war a am seen digganteeg ñii di waa Xetafe Victor Osimhen Osimhen moom jamono bi euh, maanaam njëgam dañ koo ajandi maanaam dañ ko yokk yokk ba ca kaw ki nga xam ne mooy président Napoli bi waxoon na fi fan yële bi gars yi championnat bi ne Osimhen demul fenn moom du ko jaay kenn mënul wax ba jaay la ko waaye lii rek mën a def mooy yokku njëg gi nee nañu fi ne Victor Osimhen moom cent soixante moom la ñuy maam euh, laaj ci moom voilà loolu moom la moom la président Napoli bi di laaj loolu nag mu ngi koy def pour waaye tey jii ki nga xamante ne mooy dégg nga maam euh, njiitu club ba voilà wala ñi nga xam ne ñoo seere ay mbiram yokk nañu njëg gi ba ci 160 bëgg a découragé la ñeneen ñi xam naa bu dee Paris moom am na koppar yu mu ko jëndee ndax jëndee nañu Neymar lu toll ci 222 millions d'euros jëndee fi dégg nga lu jege 200 millions moom ki nga xamante ni mooy euh, Mbappé Mbappé léegi nag kon yaakaar naa ne kooku jënd ku mel ni Victor Osimhen ci 160 du nekk problème Chelsea football na am na xaalis te ni mu koy moom yomb na ko torop te kii nag di Victor Osimhen jàpp naa ne moo mën a régler problème mu Chelsea Chelsea moom jafe-jafe yi ñu nekk di football rek te duñu dugal di football rek te ñu dugal yaakaar naa ne bu ñu amoon attaquant bu mel ni Victor Osimhen yaa léegi seen jàngaro daal di saafaraw voilà waaye nag njëg gi moom waa ji laxas na ci jaan de fi mu nii moom képp ku ko bëgg moom di nga ñuqi lu am doole maanaam forcé kay lay doon forcé ko génne ko foofu la ci Napoli ndax kat moom De Laurentiis waxoon na lu leer ci ne Victor Osimhen du ko bàyyi mu dem loolu nag boo ko déggee mooy ay caaxaan du ko fa génne yaakaar naa ne kon képp koo xam ne ñeme nga lu tàng génne koppar yu takk kooko mën a am ci ki nga xamante ne mooy Victor Osimhen ndax euh, président Napoli mosul yombal ay mbiram voilà moom jour bi muy jaay da koy seeral lool Koulibaly ay at yi at club yi bare ko doon topp waaye gis nga fi mu mujjee téye ko ba mu jege fanweeri at wala ko mu koy soog a jaay te gis ni mu ko jaay taxul mu yomb bu waxee ne Victor Osimhen du ko jaay maanaam mooy du ko wanteer ci gàttal voilà gars yi loolu fi gënoon fees ci tënkum xibaar continuer leen di suivre Sen Sport 221 the best sport news channel